kan mooy seen candidat. kan mooy le plan B de Pastef. Pastef nee nga Pastef. Euh, candidat yi nga gis yëpp kan moo ci nekk un militant de Pastef. Euh, Bassirou. Ah, ah, ça coule de source. Bassirou Diomaye moom mooy le candidat de Pastef. waaw. alors que fait de Cheikh Tidiane et de Habib Sy yi nga xam ne. Euh, yéen yéen leen yéen yéen leen jàppale. ba ñu nekk candidat. waaw ah, boo amee ay alliés doo leen jàppale Pastef dafa mas a généré avec ses alliés d'ailleurs lan la ñuy critiquer mairie Dakar <laughs> ben ñoo ko fa teg. tegu leen ko fa. non Barthélemy Diaz moo la gën a xam ne si les maires de Dakar waaw déglu ma wax la rek. Barthélemy Diaz moo la gën a xam ne si les maires de Dakar c'est Pastef. je n'entrerai pas dans les détails. tegu leen ko fa waaw d'accord. bu <laughs> la neexee. Dakar tegu ko fa tu peux le dire non dama lay expliquer ne la. nous avons été très généreux certains nous traitent même de naïfs en politique parce que on a toujours été généreux avec nos alliés beaucoup de maires au Sénégal tey suñu déggee monsieur le maire yàlla ak Ousmane Sonko. waaw ah, loolu moom dëgg la. c'est la réalité. non loolu moom dëgg donc nous avons toujours été généreux avec nos alliés suñu alliés bu ñu mën a jàppale dañ koy jàppale. donc mais ñoom. Cheikh Tidiane Dièye ce sont nos alliés. Cheikh ak Habib Sy. ce sont vos alliés. ce sont nos alliés. donc mais ce ils ne sont pas des candidats de Pastef. je peux pas les les considérer comme des candidats de Pastef. le candidat dama jàpp que ne man. ça je parle à mon nom propre et au nom de tous les cadres le, je peux le, le dire le, et j'en profite pour euh, remercier les cadres de Pastef qui font un excellent travail su Pastef ak ses films ak ses cadres am nañ ci joué nañ ci un rôle fondamental ils sont près de 1400 au Sénégal yoo xam ne c'est des bu ma nee Pastef les cadres du Pastef ëpp na de Pastef ëpp na loolu mais ñoo xam ne c'est des en encartés c'est-à-dire ils ont leur carte de membres ils cotisent ils travaillent ils sont dans la réflexion stratégique comme li ma leen di wax ne leen un cadre c'est la tête et la poche c'est-à-dire la réflexion stratégique mais également les finances mais dañ cee boole leneen mooy ils descendent à la base alors dama bëgg un excellent travail bëgg nga ñu dama dama bëgg a régler benn affaire mu mu leer parce que boobu ba tey ñu ngi naan Ousmane Sonko ñu ngi xaar Ousmane Sonko def une déclaration euh, xam ñu xam kan mooy candidat je te dis ce je pense man personnellement ah. ça peut-être que mais je peux parler au nom des cadres du parti aussi mm -hmm. parce que je suis le coordonnateur du mouvement national des cadres patriotes Bassirou Diomaye Faye mooy le seul ci vingt vingt candidats yi quelqu'un de Pastef et c'est le candidat de Pastef c'est naturel pour man man noonu laa ko gisee ah je dis ce que je pense mooy c'est notre candidat Bassirou Diomaye Faye. donc ñeneen ñi ils vont pas utiliser l'appareil ils vont aller battre campagne. Euh, seen yoon nekkul s'il y a un candidat de Pastef c'est le candidat de Pastef qui utilise l'appareil de Pastef mais bien sûr avec une coalition parce que une coalition moo porté la candidature de Ousmane Sonko. une coalition porte la candidature de Bassirou Diomaye Faye il y une jonction et coalition bi ça va s'élargir de jour en jour ba ñu am une grande coalition peut-être que di nga ci dégg sax ñoo xam ne di nga ne xalaatoo ko woon ce sera une très grande coalition. et le nom de cette coalition. <laughs> Diomaye 2024. <laughs> <laughs>